parce que ñàkkal fayda askanu Sénégal tekkiwut askanu Sénégal fal la nga jël ay nit yéen ñii gouverneur Sénégal yëpp ndomboy tànk yu mag a mag yi ñi ko fi takk boo ko calculé matul ñaari téeméeri nit yéen ñaari téeméeri nit di ci kaw 15 millions 16 millions jël seen alal gi leen yàlla jox ngeen di ko jaay te geesu leen ni ñi benn yoon ay nit ñu ñàkk jom ñi am jom ci gouvernement bi yëpp dañoo démissionné gouvernement Macky Sall bi mu fi commencé léegi képp ku xam leen ne góor la jullit la ko am jom la a mën a nekk mais képp ko ci dégg mu rëy làmmiñ nekk fi di jéem a défendre ñu di la jiñ xaalis nga ñemee taxaw ne xujj ci biir nit ñi ne wàjj ne bu leen di tegee ci kaw ceeb amoo jom duwoo nit duwoo ngor ay maam mbay ñoo xam ne li ma leen wax da ngeen a comprendre mais bu ngeen seetloo ñi ñi gën a ñàkk jom ci gouvernement bi même président bi ci boppam laa wax de bu ngeen seet ab cosaanam dëgg-dëgg moom la ko nit ñi xasee ba bu seen ñu di ko wax mooy fi muy jógee mooy ay cosaanam boo demee vingt ans trente ans ci ginnaaw dajale ba ngoon ñu doog a lekk gis nga nit nag boo soppi mais boo demee baadoolo booy nguur rek dal di wane sax baadoolo amul sax ma dem te ñëw loolu mooy li nga xam ne moom moo ñu dal vingt neuf milliards quatorze milliards cinq milliards quatre vingt quatorze milliards ay nit ñoo xamante ne ni tekkiwuñu woon dara duñ dara ci Sénégal buñ doon jaay Sénégal buñ di yéexee ñëw kenn du leen sédd ñoo ñoo da toog ci alali réew mi jiite groupe boo def benn groupe golog gong goo xamante kenn xamul ban xeet la ñuy xaw a niroog bëgg aakimoo Sénégal lan mooy seen objectif koo xam ne kilifa nga ci Sénégal ñu takkal la ci suppu kaañe bi ñuy lekk mooy lan mooy milliards yi ñuy sàcc la ñuy jox xalif général yeeg këri diine yeeg di leen ci tabaxal ay kër amul genn këru diine goo xamante ne am na soxla ci kër goo xam ne fu gan ñu fanaan la amul gan guy dem ci këru diine di fa fanaan da ñëw siyaare seen ñoo jox ko sa addiyee dem kon yooyu yëpp ay xeetu takkal la takkal nañ leen ci bâtiment loolu yemu ci ñu jox leen di xaalis ba pare di leen di weer di leen di parce que liñ def ak ñoom yëpp ñoom ñoo koy mujj génnewaat dégg nga li Farba Ngom nee na dem nañ ci kilifa diine mu jox leen xaalis moo ak Cerno Alassane Tall ñoom ñaar ñu lekk mu ngi commencé weer kilifa diine yi kon li ma bëgg a wax rek ci gàttal yaa yaaba li la naqare naqare na ñëpp waaye la ma waxoon nañ ko bàyyi te def ni nga xam ne mooy dindi solution bi solution bi dem te actuellement nii du dara lu mooy Macky Sall siif na nguur gi siif na nguur gi ba ne moom moo gañe ñu seetaan ko ne ko gañe woo da nga koo foqati mais suñu Sénégal jaralu ñu xeex tey ku gis li génn ci gone benn di leader ci campagne bi boo génnoon doo am lu toll noonu muy benn ñaareel bi mooy Sénégal jaralu leen sax ñu génn dañuy ñëw rek wateeloon nañ ñe bu Sonko moo ci des di larlari di góorgóorlu di wane lam nekkoon ba léegi ana Madické Niang ana sa Seck ana Thierno Alassane Sall ak ñeneen ak ñeneen Issa Sall pardon ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne dañ leen a euh, déparé ne woon ba mënuñu woon a jàll ñoom ñëpp tey ji ku ci ne yaa nga toog fa nga toog la leen Sonko waxoon barki démb ngeen ñëw naan da ngeen tase ci Macky Sall pour négocier ana bi muy jaay pétrole bi fan ngeen nekkoon mboolem koo fi dégg muy dem di négocier ak Macky Sall ñiy woote xaw ma ndaje général wala maslaab Sénégal ku la ko mën a wax yëgoon nañ li Macky Sall doon def seen yoon newu ci woon Sénégal nag pour ñu bale ko lii l'essentiel bi mooy ñu ànd ak ko bale Sénégal ñi nga xam ne dañoo dëng yëpp ñu nokk leen ci kaso bi ñii naa feqi ñu yemale leen seen place bu ko defee beneen xeet man fee meññe Sénégal mën a jur ay ëllëg doom yoo xamante ne boo ëllëgee dina changé daal di jëm ci réew moo xam ne ku fiy dund danga mën a jaamu yàlla nu la neexee gi ay bàkkaar dong la ñuy jural parce que dem nañ ba xale yi ku juddu njaalo ji xale yu góor yi ku te dara waralu ko lu may yàlla indi na fi lu ñuy tere loolu te ba léegi gouvernement bi fi ne mooy toroxal nit ñi ñu dee ci ndóol buñ dee dem safara doomu aadama na bàkkaar yoo xam ne ñàkk moo ko koy teg ñàkk moo ko teg boo ñàkkee doo mën a def ngir yàlla boo ñàkkee sa jaamu yàlla du marché mais boo ñàkkee da ngay mën a dugg ci bàkkaar yi parce que saytaane ku ñàkk la gën a yàpp toujours da koy wan lim amut ba pare di ko wax buntu yu muy jaar pour am ko te dootu ko seetal buntu yu dagan am na koo xam ne la tax muy sàcc boo ko laajoon ndeyam ak baayam dañoo tàqali ko parce que amuñu amuñu fuñ ko dundalee mu màgg nekk boyu ko kum jàpp da lay jàmpaak nga daanu mu yóbbu li nga yor am na koo xam ne la ko tax di jaay boppam ba mu juddoo seen kër la mu fay gis moo ko neexut bis bu xëyee xam ne mën naa am ci yaramam bi xaalis dootu ko bàyyi ci noonu lay continuer ba màggat dee dem safara kon responsable ñiy dem safara ëllëg ñu gëm yàlla war a jaamu yàlla jaamu yàlla bu sell ak mag ñi xam sax dañoo téye seen bopp di souffrance ba dee Sénégal ku fi dee ñu ci bëri ci ñoom ordonnance su 5000 moo leen rey ñi nga xam ne ñoo jiitu nag di ay jaam ay golo ay nit ñu tekkiwu dara barki démb ak ñoog seen i famille tey ñu ñëw jiite Sénégal di jël 29 milliards 14 milliards 180 quelques millions ñu jël ko pour pentirer ko ab ab ab université xaw ma lycée xam nga ne kooku du gor du jullit kon li ma bëgg a wax ci gàttal mooy nañ continuer manifester yi boor buñ ko mën a def ci kaw suuf Macky Sall retiré li mu mbaa mu jóg ci boppam boole leen jaarale leen ci yoon jox réew mi koo xam ne mën na koo liggéey jël alal ji nga xam ne moom lañ yàlla jox ñu mën koo xéewaloo gis nga am ko te xamoo ko xam ko sax moo ko gën te gis nga gouvernement bii fi ne ñaar yëpp lañ boole dañuy ñàkk alal ji parce que ñoom percentuel lañ leen ci jox tuuti lañ ciy am ba pare rek ñu ñàkk ko boole ci xamuñ lañu leen di jox xamuñ alal ji lan la ba pare xamuñ ndóol gi seen mbokk yi nekkee ñoom ñëpp ko ci daw bare dagaj ci pale kër gu sedd defar ci lu baax rek pour yow sa àddina baax na ndax yow say maam ak sa maam Matar ak sa mbokk yëpp dañoo toroxoon nga kattale sa bopp pour yow na yàlla ji taw waaye ma macc nga ci ndox mi maa ngi jéggalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.